ausubillah min asheytaani irajim bismillahi irahmaaniirahim wasalaatu wasalaamu ala nabiil karim sayidina wa maolana muhammadin al makin wa ala alihi wa asaabihi wa xadimihi sawi ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokkum taalibe si seen mbokkum julit di seen mbokkum am di jàmm di seen mbokkum dëkkandoo Moustapha Guèye indicatif Seexul Xadim taalibe sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasoul tey soppeeb sëñ Mbàkke moom maam Soxna Lo Jóob Taif tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Touba saa su nekk yàlla na fi yàgg te wér tey roy Cheikh ci dëgg te yéen ñëpp jàmm di ko ñaanal àddina bépp di ko ñaanal. waa Sénégal te di ci jiital kilifay diine yi ñuy gindi suñ digg lislaam bokk nag tey moom waxtaan wi ak cant rek lay doon sant nag dafa war ab jullit ndax sant seytaane bi mu demee ba xam ne diggam ak boromam amatu fab cër mënta tere nit ñi julli mën mënta tere nit ñi woor mën mënta tere nit ñi natt asaka mënta tere nit ñi aj makka mboolem ponk yu baax yi mënta tere nit di ko def nga xool benn bunt boo xam ne nag jàpp na ne moom bunt bii mooy bunt bi nga xam ne mën na cee jaar ba yàqal ci doomu aadama ya rawatina julit bi muy sant moo tax mu ne wala tajidu aksarahum sakirin daal wax suñ borom ne ko danaa fexe ba ñu ëpp ci jaam yi duñ la sant foofu la suñ borom waxee ne iblis de lii da koo xalaat rek waaye dëgg la de baat boobu la iblis ma sa wax ci dëgg danaa fexe ba ñu ëpp ci nit ñi duñ la sant néewul duñ la sant de ñi ci ëpp la wax yàlla na ihmaloo alu yi sukran wa xalilun min ibadiya sakur boo wa xalilun min ibadihi shakur nag mooy mbooloo mu ne ña ca gën a néew ñoom ñoo may sant sant nag façon yu bare bare bare bare te ku gis langage su nit ñi surtout ñun Kocc Barma bi ñuy waxee da gis ni loolee saytaane waxoon am na li yàlla wax am na ndax ñu neeway sant ndax sant mooy li feeg yaa ngi am xéewal doo ko jibal am nañ phénomène boobu sax da ngay dem ba da ngay jàmbat loo xam ne si sax nekkul ci yow waaye pour bëgg di ko masque sa diggante nit ñi pour bañ ñu soxlaal la dara moo tax fi ne dangay gis ko bu doon gañe ay marché di gañe ay millions doo ko mës a dégg bu doon jënd ay oto doo ko mës a dégg buy jëndi kër di tabax doo ko mës a dégg bu yaramam di wér doo ko mës a dégg mukk ma taxaw wax waaye gis nga bu xëyoon tey dem ca marché bee génn ñu taxu ko ab junni dajeeg am ab lay sekk mu taxu ko junni nga gis mu tàpp poos yi gisu ko ma ngay tàmbali patam patam patam patam boo taxawee na ko sekk du la fay lu xew mu ne waaye man sama li ma yoroon lépp réer na li ma yoroon lépp dem na lay wax xam nga doo wax na sama junni dem na li ma yoroon lépp dem na lay wax nga xam ne boole na ci sax la ci bokkul te loola rek moom mooy li nga xamee ne mooy problème am moom te mu ne ba koy gañe de waxu ko day ñëw rek yolos yolos yi dem te koo ci dikk fekk na ko abal ma nangam mu dóor law lay ah man defi ne danga nga xamul ne yow fan yii de moom kiris bi fan yii de moom marché bi fan yii nangam nangam nangam kooko xam nga na du sant nga gis koy dox dara jotu ko muy sport de lekk di naan di nelaw di def lépp benn bis xay am sëcc na ko man te xëy liggéey nga ñëw seet si ko mu ne koy fan yii yëpp maa ngi nii tëdd fan yii yëpp moom maa ngi nii lëgguma te donte ñaari fan la wala ñetti fan la waaye ñaari fan yow la ñetti fan da koy double la pour wane na maanaam eh, lii ma dal ma xam nga kon loolu mooy buntu sant bi nga xam ne moom rek laay ubbi waaye nag nit ki bu nekkee ci ak jub wala nga koy jéem yàlla dana la ubbil bunt boo xamee ne que nii lépp luy xéewal yàlla dëxiñ na ko ci biir xéewal googee nga soxla nag te boo ko jaaroon ci beneen buntu doo ko am nga jaar ko ci buntu sant yàlla dana la defal cir boo xam ne ku la gis dana la respecté jox la cër loola nag dara jiitu ci jaamu yàlla waaye nag alxuraan mooy li nga xam ne moom boo ko saxoo di ko jàng def ko añ reer ni ko warloo bis bu ne yàlla dana def ci yow ci sa làmmiñ fasaaxa boo xam ne boo yëkkatee kàddu di wax yow miy wax sax da nga xam ne lii du say mbir mbirum sëñ borom la bu see ñu nit ki ñeme ko wax katum dëgg la nit lu wax dëgg la Cheikh Abdoul Ahad boo gisee fi mu ne nii ku ko wax daal koy dàkkantal ci dëgg ak fit mooy dafa ñeme woon alxuraan doon ko jàng sëñ Tuba fitam bi ak tukkeem bi ak yiñ ko fexeel yëpp mënuñ ci sëñ Tuba dafa taxawoon ak alxuraan kon alxuraan mooy prothèse bi njëkk ci nit ki mooy sécurité bi nga xam ne ku koy def. yàlla noo seulement mu aar la wala da lay may fasaxa boo xam ne tey boo doon waxantu nii toŋ yàlla xam ne ne boo ko waxee ak dëgg lay doon koo xam ne boo delluwul ci téere yi ku dellu ci téere yi danga ko ca fekk man day wax dëgg yàlla foofu rek laa nekk yéene gi ma ko yéenee sama bopp nag moo tax ma yéene ko nit ñi di ci xettal nit ñi bëgg ne àddina ak àllaaxira lu ci waay bëgg jàngal alxuraan te bañ cee wut benn intérêt nag bu dul ngir yàlla bul ko jàng ngir ne damaa dégg li kii wax wala damaa bëgg nangam naa ko jàng déedéet loolu du tax danga koy jàng te yàlla tax muy neex nga jàng mu naqari nga jàng muy euh, naaj nga jàng muy guddi nga jàng nga feebar sax dee ko jàng sas loo ci daal loo xam ne si moom da nga koy warlu boo ko defee nii te di yàlla tax nga di ko def yàlla xam na ne yàlla dana ubbil xéewal gu la nit mën ta jox ci kaw suuf xam nga ba ma daree def révélation dafa yàgg ba ma daree def révélation dafa yàgg surtout nag lu jëm ci mbirum yoonu murit walla Touba man da jànguma xam ngeen ne sama njàng moom ku ma dégg xam ne jànguma waaye nag yàlla dimbali na maa ngi nab nabi di jëm di gëstu it nag waaye pour wax leen ne ak murit fa ngeen ko teg nekku fa ak murit fa mu tegu rek foofa yi foofa murit du ci ak col murit du ci làmmiñ wu neex murit du ci eh, aw askan murit xam nga mooy lan mooy ku jub rek te bëgg tegu ci jub siraatal mustaqima boo ci xasee tegu rek yàlla da lay taalal lumière yow xam ne si doo gëlëm te doo tàbbi ci kamb loola nag fokk nga gëm ko dellu ci yàlla xam ne sëñ Tuubaa bu kenn wut koy doxale ci diggante bi koo jàpp ne moo la ko gën a bëgg dangay teg sa tànk fa mu tegoon tànkam di ko roy yamala ca nag ku naan la waaw góor ak ku lay saaga yamala ca ku lay xas ak ku lay bàyyi yamala ca am ca ak ñàkk gis nga man lii may def nii mbindeef mu yàlla sàkk yaakaaruma ko ci fi ne waaw góor ku ma koy wax ak ka saaga laa yemale kii nag waaw góor mënta fexe ba ma dolli dara ci li may def waaye ki may saag yi mënta tax ba ma bàyyi li may def éditorial bi nga xam ne jël naa ko daal bañ ma xamee ba fi mu ne ci loolu lañ ma xam ba may gone di raam ba nëgën yi ñama jurul famille ba ma judd xam nañ ma bu baax xam ne ligne bii ma jël mësuma ko wàcc moo tax nag ni ma mel ci sëñ Touba te doxaliwuma ci diggante nit du lii xew léegi fekkee ma ci booleel déedéet ak xumbandoo ak réerandoo man la may def ma wéet ak ma nekk ci mbooloo yépp laa ci yemale sëñ Touba rek laa teg sama bët moom dong laa teg sama bët teg ak njabootam bët teg képp ku ko bëgg bët teg képp ku koy roy ci bët ku dul loolu nag yaa ngi ci sama gannaaw bu ma cee soxla kii nekk sama kanam yi la sëñ Atou Diagne waxoon nag bala maa am jàmm dama laa dab loolu nag du waxi kese dara boo ko bëggee danga koy roy mbirum àddina mii ñiy roy tey jii képp koo xam ne si la ngay roy def nga ca lu nuroog la muy roy rek dañuy defe ne kooka la kuy roy nag royal sëñ Touba. ma yàgg am lu ma naqari ci Touba ba wutal ko émission spéciale fukki at a ngi nii ma di ko def wala boog li ko manqué bëriwul or may Touba ñëpp dégg nañ ko kan moo may fay kan moo may sponsoré ban rajo ma invité ban telee ma invité kan moo ci yëkkati benn teraanga lu toll na tarfatal xay ni fekk ma jox ma ba mu wóoral ne lee tax Moustapha di wax personne yàlla rek moo ma ci jox intérêt ba tax ma di ko def sëñ Touba it moom ma ci wan intérêt ma di la ma ci bëgg lépp maa ngi koy am. li ma ci bëgg lépp maa ngi koy am te kenn mënta daagu fekk ma sama kër wala nga poñe ma ci mbedd mi yàpp ma ne ma lii moo tax lii lii ma la defal moo tax nga am ko te bu amoon it du ma la ci gërëm du ma la ci sant waaye amul duma toroxal sama bopp mukk duma dem ci xew wuñ ma wowul du ma campagne bu rajo du ma campagne bu télé faaliwuma ku naan ma waaw góor faaliwuma ko may saaga man daal ak gët laa gëtum nag boo xam ne buñ ci yeewee fukki nag ak nangam sama maama ko doon nettali nag wu ne ak jikkoom wii di dañ wii di féqu wii goor wii taxaw wu ca sonn bu ñoom ñëpp buñ sonnee ñoom ñëpp dañu mujj goor te du tee nga nekkub gétt loolaa tax ma jël sëñ Abdoulaye teg doxale ci sama digg ndax am na yoon woowu boo ko jëlee fokk nga yoon ngànnaay man sama ngànnaay mooy alxuraan sama ngànnaay mooy alxuraan li ma am lépp ci laa ko ci laa ci am ta maa ngi ñan teraanga ju ma yàllay defal na ko jaarale ci alxuraan kon kenn fayuma ku dul yàlla kenn defaluma tus ku dul yàlla ku ne ma waaw góor alhamdulilah ku ne ma leneen waaw alhamdulilah waaye du tax mukk ma soppi wirgël ci li may def moo wéradi ak ma ñàkk wéradi dee doo ma mën a tàqaleeg moom ormay Tuubaa ji bi ma koy créé lan laa ci doon wax dama cee wax a wax a yi ñu may noonal naan dafa bañ mbàkke mbàkke yi wax nañ ma ko de dégg naa ko mbàkke mbàkke woo na fii daggal ma fi saagay nday ku sant bu sa woo na ma fii daggal ma fi saagay ndey man Moustapha Guèye mii di wax ak yéen ca njëlbeen ga ban demee nag ba gis na àddina soppiku na liñ jàpp ne mooy ay saaga ci ñoom gis nañ ne koo xam ne si saaga directement lay def jëmee ko ci waa Touba di tudd seen tur xay na ñoo ñaama masque ba tax na léegi tuddatuñ waaye ko xam Moustapha Guèye xam na aw saaga du ko jëm du ko jë jël mukk di ko jëmale ci moroom doomu adama waxuma la ku ni ormal wala ku ñuy ormal sa moom loolu ku ma ci séentu doo doo ma ci fekk xam ngeen amoon naa fi benn anecdote bi sëñ Muntaxa di door a toog jëmm ja ca doon wax waxam ji ñàkk teggin joojee noonu ya profité ca occasion ne ne kii de mooy ki nga xam ne mooy kii wax ci Touba toujours ci ormay Touba ji li may wax am na ñu daal may localiser ci biir Sénégal localiser lañ ma def dem ca kër sëñ ba dajaloo waxtaan ne léegi kii kat nangam ak nangam ke noonu yëpp daal di profité xaw nañoo yëngal sama kër booba maa ngi war a retourné waat Italie ci même jour boobu far dem aéroport sans passeport jeex ma wàññi ko waat diggante bi ma koy def ndekete ñu may rëbb coup téléphone mën a jot naa ko waaw li may dégg li may dégg man leen li ngeen dégg mooy lan li ñu ñuy wax sëñ Muntaxa dafa ngeen a kàddu gu ñàkk teggin mos nit mën naa agg ci ban ba di ma fiir ci foofu nan man ma yëkkati kàddu di ko jëme ci sëñ Muntaxa waaye nag ku ànd ak yàlla rek yàlla lay protéger gis nga kilifa ga ma woo ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi Dakar poste caaro mu ne ma noo mën a def na génn dëkk bi tey ma ne ko ci lan mu ne ma daal localisé nañ la ba ñu ngi lay rëbb biir Sénégal noonu yëpp taxaw socc di ree di kontaan waaye xam nga lu ma ko wax ma ne ko sëñ bi mu ne waaw ma ne ko mën na ma war ci Serigne Touba Mbacke li may def duma ci yokk sifru duma ci wàññi sifru ndax bir na ma ni lii ñu may tuumaal lu man te yàllaa ngi ànd ak ba wallaahi alxasim du ma ci daw sebro ah ñaa moo mu dee nangam nangam moo doon wax ci maa u rahmati moo doon jàppale sëñ diw moo doon def nii wax ju bon ju nekk nit wax ma ko ci mën a dekk rek ànd xel mu dal ba ngoon jot ma dem jël sama tata daal di wuti aéroport ba ma demee daal di ambarke ca salle de tente ba ma toogee wala def benn audio wax leen lu ko xam si ku ko dégg xam ne man la may wax moom ëmma ci intérêt di ci ragal kenn keroog bi mu ne cëpp aéroport Malpensa ba ñëw jël kaar ba ñëw gaaru Bergamo ay aéroport Bergamo mooy sérieux la message ñëw wàcc am ko ma woolu ma ñëw mu ne ma santal yàlla ma ne ko lu may sant yàlla mu ne ma kañ la doon jiiñ ba tax ñuy woote ba woote suñ sama kër sëñ Moustapha Massamba sax woote nañ fa woo njaboot ga ñoom it kenn ku nekk di woote kenn ñi naan xamoon naa ko waaw day sab soblu day réew làmmiñ nangam ak nangam di wax xamoon naa ko ñu ne ma santal yàlla bàyyi xaadim Diop sax jot naa ko keroog bëkk néegu sëñ Muntaxa mu ne ma sëñ ma Moustapha man waaw mu ne ma santal yàlla ma ne ko alhamdulilah rabil alamin mu ne ma lañ la doon jiiñ daal ba la ci doon rëbb mu naa ah, buñ ci def buñ la ci jàppoon wala ñu def la ci dara yaraa nga dara ñu dal loolu santuma ci kenn ku dul yàlla yàlla doo nga mën a protéger mu ne kooko localisé nañ ko jàpp dañ ko ngeen dégg tuub ga nam doon tuubee man ku may xaar ci may wax lu bon jëmee ko ci tuubaa dooma jàpp waaye lu ma ciy wax mu naqari nii nag na xam ne loolee daf la ratewul te maa ngi ko jëlee ci Matlabul Fawzayni jëlee ko ci njabootu sëñ Touba xew-xew yii fi xew ñaata yoon laa fi taxaw dénoncé liy xew biir Touba am ñu may woon naan ma yu mel nii bu ko waxatee ndax day gàkkal yoon yi man leen waaye yéen dem leen fële luy gàkkal yoon jëf ji ñu jëf koy mooy gàkkal yoon waaye di ko dénoncé gàkkalul yoon bi yéen ñi nës nësal lu bon ci biir Touba yéenay yéen yéenay ñi xam ne yéenay gàkkal waaye sëñ Touba moom kenn mënu koo gàkkal barki démb rek pour tëj bi coow li amee ci manifestation bi te man lu xew damay alerté waa Touba na ngeen fexe ba buñ leen kenn dugal ci lu ngeen watu dugg di jot meram sëñ Touba nan laa def taxaw alerte def alertation yàlla dogal ci guddi ñu taal fa ay pën ba ma ñëwee daluma ci kaw booyee de ndax booyee lañ def dafa am lu tax ñu di ko def waaye ñee bokk ci njabootu sëñ Touba ubbi buntu seytaane ba seytaane dugg biir Touba ñooñee laa da attaqué directement te tudduma ci turu kenn te tey jii ko dàq. ne nag bu ngeen bëggee jëlee lii ci Touba da ngeen di fiy jëlee bi ñi koy def ci biir Touba nañ fi jóg ndax yàgg nañ ko danoo seeti nit ñi duñ dégg ay wax nañ weesu nag ay wax te jëflanteeg ñoom ci baati nag doole. ma wax ko waxaat ko keroog ñeenti wujoo yooyu benn bu ne diire na vingt neuf minutes def naa ko te loolu yëggagul te ba ma ko dalee def ak léegi ëpp na fukki at sëñ Mountakha mujj wa baay Fall yi annonce bi ngeen dégg sëñ Mountakha dégg def déclaration démb déggu leen est-ce la mu wax bokkul ak la ma doon la ma doon kaas nee na politique bi maytuñ ko kenn ku ko def ci biir Touba permanence yi ne ci biir Touba dañ ko fi war a jëlee génne ko te effectivement loolu mooy dëgg ba leen sëñ Touba di boole ci seen bopp boolewu leen ngir seen lu leen neex ci àddina wala ngeen di dooleel seytaane daf leen a boole ci woo leen ci ngeen ñëw jaamu yàlla te te di ci soññee tëj leen ci seen te ngeen man ci ñëpp tey àddina joxuma dëgg sëñ Tuubaa joxuma dëgg tey te loolee moo doon solution mi nga xam ne wiir wiiri jaari ndër mooy mooy li nga xam ne moom moom yàgg yàgg buñ ko diful liñ bëgg a faj du faju am ndox bu duggee ci sa biir kër wal ba nangu say néeg te ndox mi di jóge ci bitti di dugg ci biir wutoo loo ko défensé nga wut ab buntub grillage doxale ko sa digg ak ndox mi di ba pare di tonn ci ndox mi di sottiwaat ci bitti loo sottiwaat mu jaarat ci biir jàll da ngay koy fexee sakk bunt bi ba pare ton tonni door a génne ci biti amul kii amul kaa ku mu mën a doon ku la mën a jur bay ñu kenn ngay politique biir Touba ku koy def génnal sëñ Muntaxa àgg na sax na woote bi sax bu ñu ko fekketee buñ ko defati ci biir Touba si war joxuma dëgg yeneen yi ci def yépp noonu laa koy dénoncé yamale nag lu ma ci am jël kërtuma ci poosu kenn bëgguma ko na ma waa góor bëgguma ko ma neexal bëgguma ko ne naa ci am ngërëmal yàlla rek man ngërëmal yàlla laa ci sàkk ak sëñ Tuubaa bi may liggéey nit ma protéger ma ba li may wax moom ku ko dégg xam ne man li may wax dëgg la mu jeex takk yéen ñi ma xam jaaxalu leen waaye ñi may door a xam ñoom tax may leeral lii mu tey la ma doon wax sëñ Muntaxa mujj mujj ko def nañ jële politique bi biir Touba nit kenn du ko rusaale diwa la jur nangam la jur ngay def loo xam ne si bokkut ak ormay Touba nañ ko dindi sànn ci àll ba yoon wi ñi ci rax dafa bari ñi ci jox daa bari te ñi ci joox bi ñuy dikk di pas-pas bu bon lañ ci indaale defe nañ ne yoonu yoonu puukare wala yoonu lekk ak naan yoonu sanca yoonu taxaw di def lu la neex la du noonu yoon wi yoonu jaamu yàlla la ku jaamu yàlla ñor boo dikkee àndalal sëñ Tuubaa ku jaamu yàlla ñorul na nga dem ca àll ba sëñ Tuubaa fawul fawluwul wal tusbitan fihi jamaahata tuqim asalawatal xam sa dex ban ya hakim loolu la ñaan ci dëkk ba jaamu yàlla waaye nii ñu bëgg a ubbee bunt bi ubbi borom xaalis yi kenn ku ne wute xaalis nu mu la neexee bëgg ñëw raxase ko Touba lu bon lu ne ñu ne Touba lu ñaaw lu ne ñu ne Touba est-ce que jekk na ci dereb Touba est-ce que ñun taalibe ñun ñun ñun ñoo wacc suñu ànd bëgg ubbil bunt boobu ñooñu loo wax ñu bëgg kon wax naan lii moog àddina ànd ak nangam ak nangam da ngaa tàng diine yow yii nangam nangam waaye gis nga dëgg moom boo ci royee Cheikh Abdoul Ahad sax ca nag bu yàggee da nga soob yàlla danañ la may jàmm waaye sama njëlbeen moom nii la demee waaye nag sama finition yi nii la mu ci te duma ci deltu gën a mukk te nag ma ci benn xarit wala kenn koo xam ne nii ku la mën a jur ci biir yoon ak lu ma xaritoo xaritoog yow bu dëgg gi tegoo ci sa kaw danaa ko wax man na maa bañ tudd saw waaye mënoo fe ndax man sëñ tubaa ma gënal ñëpp du ma maslaa ci sëñ tubaa loo xam ne si ab cër doo nga tax nga di ko def te loola bëgg bokkut ak li Touba bëgg kooko ci mën a def mën naa laa bàyyi addina ak àllaaxira bàyyi la addina ak àllaaxira mën naa ko def ndax ba may judd fekke woo ko bu may dee it nga koo a fekke yoreloo ma sama dépasse yoreloo ma sama tus ak comme ci mën a doon nag laa wax comme ci mën a doon kii que ce soit ci mën a doon ku la mën a jur boo nekkul ci dëgg yàlla mi ñu tam xam ne ne ba ñu ma affronté ak yow wax la ba nga dox ba dégg ko xam ne yow mii ci yow lii ci yow la jëm traitement ndax man du ma rus kenn di jël loo xam ne si lu naqari sëñ tubaa la te muy doon lu yàlla ma koy ànd xalaatuma ko moo tax ku ma ci àndalit jëmmi sëñ tubaa tax may ànd yow bu ma gisul sëñ ci yow rocc ko ba set ci ndax kenn jëfaluma tës lu tax ma di la sëñ tubaa lay topp topp bu ngeen gisee maanaam dimb ànd sëñ muntaxaa ci liggéeyal sëñ tubaa la tax ma di ko def sëñ muntaxaa liggéeyal sëñ tubaa ko tax jóg te lii may def neex na ko lii may def neex na ko te leer na ma ne yàlla am na ful la jëj lii may def bu dul woon yoon ba tey kenn waxatu ko waaye nag alhamdulilah bi ma nit ñi màndargaalee ci loo wax ñu ne dëgg la am ñu koy déglu te muy wóor ni li may wax moom dëgg la goo xam ne si kum neex dëgg la kum naqari dëgg la ndax ci preuve yu leer laa koy teg te du ma ci sosal nit au ma ci toog di xuloog nit ci sama intérêt bopp jërë ngeen